salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki Dakar ñi ngi leen di nuyu di leen ziar seen mbokk seen xarit Akhenaton di def alerte bu urgente alerte bu urgente bu vitale di adresser au ministre de l'Intérieur les renseignements généraux les forces de défense et de sécurité suite aux violences perpétrées hier soir à Dakar sur les caravanes dirigées par euh, le candidat Abbas Fall de Pastif. les éléments de Barthélémy Diaz ont eu à attaquer la caravane de Abbas Fall de Pastif. Vous avez suivi ce qui s'est passé ensuite. Abbas Fall donc, a décidé de donc, riposter. Barthélémy Diaz, aujourd'hui, a réuni ses hommes à qui il a donné de l'argent pour aller acheter des armes blanches, des couteaux, des diassis et tout ça, dans un endroit appelé Rokubu, En plein centre-ville, il y a un appelé Sew, il y a ak yu baree bari ak ci paaka ak ay pompe ak gaz yëpp daf ko gis seen ay 4 x ay pick yu weex kii nag di Assane Diouf bu ñu déporté woon États-Unis ak Boucher Ketchup ñoom ñaar la ñu recruter jox leen ay millions ñu dem recruter ay nervi ay feeskatu nit ay reykatu xar ak ay reykatu xar ca Seras Seras ñu dem recruter leen dugal leen ci convoi bi pour tey taal siège Pastef bi nekk Dakar bi ab siège siège de campagne QG de campagne yu Abbas dal ci seen kaw. c'est ce que Barthélémy Diaz a décidé nee na du génn Dakar tant que tey jii taaluñu siège Pastef muy QG de campagne bu Abbas Fall nee na dafa war a dem ci biir intérieur du pays bi mais du dem ndax dafay dem te moom ak Ousmane Sonko dinañ daje ci biir Sénégal te dina duma Ousmane Sonko dal ci kawam ak violence xeex ak moom lii la Barthélémy Diaz a décidé ci biir QG de campagne am tey jii parce que maa ngi ci biir lu ñu fa def xam naa ko sama alerte bi il faut le prendre très au sérieux le ministre de l'Intérieur doit arrêter Barthélémy Diaz et ses hommes de violence. Ça ne peut pas continuer. Nous avons ngi campagne campagne normale violence amul Barthélémy Diaz comme d'habitude Ray Hassan Diouf dit ko ba de violence ça ne peut pas continuer ce pays doit agir avec force et puissance pour arrêter cet individu là qui partout où il passe ne fait que semer la violence ça ne peut pas continuer Bon sang, le président de la République a appelé à une campagne calme, apaisée, une campagne basée sur des idées et des programmes. Barthélémy Diaz amul Khalat, amul idée amul dara xeex Goudi, xeex bëccëg génne fatal Ray toy toj Lol du programme Wa Dakar xaaruñu loolu ci président génn barki démb campagne campagne bu sedd campagne ci j'aime, ku nekk indi sa Khalat, Tek askan wi se si bis ba Barthélémy Diaz ne amul xaste dóor rey génne fetal jaasi loolu mooy li mu mën a jox dakaar moom ak loolu lay campagne loolu du jàll ministre de l'intérieur ñu ngi lay woo waa Dakar dañu soxla campagne bu civilisée soxla sécurité soxla paix soxla jàmm képp ku bokk ci convoi wu Abbas Fall képp koo xam ne Ousmane Sonko ngay àndal ak président Bassirou Diomaye Faye maa ngi lay woo man akay nga def campagne bu dal campagne bu am jàmm campagne boo xam ne ci ay xalaat nga koy teg ak ci luy suqali Sénégal waxtaan ak sénégalais ci jàmm ak salaam xeexuñu xuloowuñu daluñu ci kaw kenn bëgguñu violence képp ku ñu teg violence nañ ko xàmmee jox ko ministre de l'intérieur mu def ci li ci war a def une campagne en am violence ku dal ki suñu kaw nañu fexe ba ràññee leen porter plainte jox ko ministre de l'intérieur les forces de défense et de sécurité ñu gérer ko xeexuñu xulewuñu doxuñu ci violence kenn du yàq suñu campagne campagne bu dal lañu bëgg bu jàmm kon maa ngi interpeller Jean-Baptiste Tin, le ministre de l'intérieur que mu jël ay responsabilités et ak ay dispositions conformément au vœu du chef de l'État qui nous a tous conviés à aller vers une campagne de paix apaiser une campagne programmatique et non une campagne de violence comme nous y a habitué Barthélemy Toye ça suffit ça suffit ça suffit lii mënut continuer ce n'est pas possible Ben nit nek Sénégal lëmbee ko une deux mu génne fetal rey nit une deux mu tëkku une deux mu génne ay jaas li lii Sénégal xana amuñu autorité ça ne peut pas continuer c'est fini ça ne peut pas continuer que les ministre de l'Intérieur prenne ses responsabilités c'est pas possible quand même partagez le ko merci beaucoup à